أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام mbokk jullit yi ginnaaw bu nu tàmbalee ci turu yàlla tabaraka wa taala ñu ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal tey ñu ngi jël qissatu yunus alayhi salaam muy istuwaaru yonentu yàlla yunus ginnaaw ba ñu jeexalee zilkifli ñu ngi ñaan buur yàlla tabaraka wa taala mu defal nu tawfiix ci li nu passé woon yunus alayhi salaam mu ne kaana fi qaryatin yuqaalu laha ninawa nabiyun karim ismuhu yunus alayhi salaam أرسله الله إلى أهل هذه القرية التي عاش أهلها زمنا طويلا على الجهل والشرك ñune borom bi subhanahu wa taala tànn na ko moom yunus yónni ko ci benn dëkk bu tudd Ninawa moom yunus yàlla yónni ko ci gox boobu ci barab boobu ci dëkk boobu nga xam ne ay ñoñam nitu dëkk boobu dund nañ jamono ju yàgg di dund ci keddo ak réer di dund ci réer alal jëhl wa shirk loolu nag lu yàgg la ci jamono ndax nit moom yàlla moo ko defee nature goo xam ne mënoo fee nekk nii rek vide foog nga am loo gëm foog nga am loo topp foog nga am loo jaamu waaw nit ñi saa yu ñu toppul yàlla rek topp seytaan saa yu ñu gëmul yàlla gëm leneen saa yu ñu xamul réer saa yu ñu réeree bokkaale réer moom bokkaale rek lay jur saa yoo déggee diwa ngay bokkaale li nga war a njëkk a def sa xel mooy dafa réer parce que ku xam doo bokkaale ndax xam nga li nekk ci bokkaale ñoom nag waa dëkk bi di Ninawa dund nañ dund bu yàgg ci réer réer gi lan la leen jural mooy bokkaale bi loolu amee ndeysaan sunu borom subhanahu wa taala borom mbaax du mbugal ay nit mukk xatta nabaas rasula yàlla du mbugal ay nit mukk lu dul dana leen yónni ab yonent pour lan pour ngànt ëllëg te yow yàlla aw lay lu tax yàlla nga ñuy def nàngam te ñun xamunu woon moo tax yàlla daal leen di yónnee yonent fa arsala allahu ilayhim nabiyahu yunus ñu ne addina bi yëpp ñaari nit rek la ñuy dàkkantalee ci seen yaay ñaari nit bu ñu waxee seen tur teg ci seen tur yaay isa ibnu maryam yunus ibnu ibnu matta li gaa naan yunus ibni matta ala wazni hatta ah turam boobu tukulóor yi ñoo ñu tudd cubballo ñoo ñu di liggéey ci wàllu dex di nappi jën turam am na lu ñu ciy utiliser pour buñ la bëggee buñ la bëggee fotal ngay lekk ak ñoom ñu bëgg nga jóg wala ñu bëgg laa siis ci lekk bi wala ngay lekk lekkin wu ñaaw ñu bëgg laa yar waaye nag moom place bi du place am pour wax ko waaw wala nga wax ko léegi keneen dem dégg ko di ko jëfandikoo loolu tamit wóorul kaana fi mu ne fa arsala allahu ilayhim nabiyahu yunus yàlla daal di yónni ci ñoom yonentam bu mu tànnal boppam bu tudd yunus alayhi salaam lan moo tax yàlla yónni ko li yaduuhum ila al imaani wa tawxid yàlla yónni ko ci ñoom pour ñu gëm yàlla pour ñu kennal yàlla ñu nekk ñu am tawxid gis nga mission yonente yi ñoom ñëpp min ladun aadama ila muhammad saa sallam ñoom ñëpp risaala bi benn la an ibudullah wajtanibu taaxut wa in min umma illa xala fiha nazir wa in min umma la yàlla wax amul benn xeet lu dul yonente dem na fi wa laqad arsalna fi kulli ummatin rasul limaada an ibudullah wajtanibu taaxut lan moo tax yàlla yónni yunus ila al imaani wa tawxiidi pour ñu jaamu ki gëm yàlla waaye ñu kennal yàlla subhanahu wa taala wa ila ibadati al xaaliq jalla wa ala ne nit ñi dañoo war a xam ne jaamu jaamu kenn dong moo ko moom kenn dong lan koy def muy kan muy allahu subhanahu wa taala moom dong dong dong dong dong dong dong dong dong lañu war a jaamu jalla jalaaluhu barakallahu fik jazakallahu xayran walakinnahum rafadu al iman loolu mooy natiru nit nag natiru nit ñi mooy su ab yonent ñëwee di woo nit ñi jëme leen ci yàlla wala ku baax ñëw di wax lu baax natiru nit ñi mooy ñu lànk ban dëkk ngeen mës a dégg ñu ne yonent ba dafa ñëw wax rek nit ñi nangu ñëw tey rek wax rek nit ñi nangu moom kay guerre lay nekk guerre sa digganteeg ñoom ñu def la noon mooy li am tey tey ñépp ñu liggéeyal yàlla ay noonu nit ñi lañu ak foo bokk xeet boo bokk làkk boo dégg dëkk boo mën a nekk ruq boo mën a nekk jàkka joo mën a nekk ci àddina bi foo mën a nekk ngay waxal yàlla kese kese kese dara dara dara àddina ak leneen raxu ci noonu nit ñi nga tak foo mën a nekk góor nga jigéen nga mag nga ndaw nga xees nga ñuul nga noonu nit ñi ngay doon saa yoo nee yàlla nga gis nit ñi seen xol yi commencé bañ yàlla sax wax na ko wa ida zukira allahu waxdahu is maazzat qulubu alladina la yuminuuna bil axira mi ne yàlla kese nga gis xol yi commencé lemu fa ida zukira min dunihi fa ida hum yastafsirun bu ñu waxee leneen ngi ñëpp kontaan est-ce que waay commencé di màggal di fettasu ñii di mbëkki ay oto ñii di yuuxu ñii di daanu te bu ñu waxee yàlla kese kese kese kenn du daanu mu ne ñépp bi yunus ñëwee tàmbalee wax rafadu ñu lànk maasa rafadu anil imaani ñu lànk gëm dan lañ lànk tawxid gis nga tomb bi muy tawxid kennal yàlla nit ñi dañoo xam danger bi ci nekk ba borom xam-xam yi sax léegi dañ koy moytu da ngeen doon jëfal dafa da ngeen doon waxante ci mbirum jënd ak njaay waaw
ci kaw bi ni bi ma ñëwee ñu ne tey bi nga demee ba ci moom waaw jàmm sante moom mu ma mu ma sant diw rek après noonu dem naa ba ma ma continuer ak moom diw rek ma continuer ak moom mais ci biir loolu man xam naa ni bëggatuma jubóog moom. ci ndax lim wax ndax lim ci dugal.
waaw ndax lim ci dugal.
waaw ma ne. nit ñi.
ba sànq rek waat na ma ma jàmm sante moom mu ni ma maa ngi sant diw rek ma ni ko.
yow yaa mu sant yàlla.
sant yàlla bu baax waaw sant yàlla de kuy sant daal yàlla nga war a sant.
loolu rek tax na man bëggatuma sax.
waaw ñu mën a.
waaw mooy gis nga tawxiid tey tey scandale bu ñu am ci àdduna bi tawxid ñàkk tawxid moo nu ko waralal ci kaw ak ci suuf ci biir ak ci biti problème bu nu am rek mooy ñàkk tawxid xam nga ñàkk tawxid weesul yàlla may la xéewal nga tiim ci xéewal googu di ko jaay nit ñëw di jàmmasante ak yow di soxla loolu ba ko jënd naan la na nga def nga ne ko maa ngi sant diw te yàlla ne la wa amma bi ni'mati rabbika fa haddis maa la defal xéewal man yàlla man yàlla wa ma bikum min ni'matin fa min allah yàlla mu ne xéewal bu ngeen mën a am du ci seen yaay mooy liggéey ci kër gi du seen baay du seen xam-xam du seen kàttan du seen mën-mën du seen coobare du seen doole du seen capacité wa ma bikum min ni'matin fa min allah bépp xéewal bu ngeen mën a am nu mu mën a toll nga koy yéema nga koy xeeb yàlla nee na ci yàlla la bàyyeekoo kon doo sant yàlla moom léegi nga ne yaa ngi sant diw ana diw dee na xamu la xamu la yow sax xamoo ko da ngay xam-xam lu rek mais xamoo ko xamoo ko bu dekkee waatoon ci àdduna nii dina la romb sax doo ko nuyu parce que xamoo ko.
est-ce que est-ce que suñu doon soxlaa sax duñ defar loolu mooy wax bi.
defaraat yi ñuy jikko waaw léegi su ko defee nit ñi di di ngeen di wax su dee saa est ce que du leen defaraat problème bu gën a rëy bi ñu njëkk am mooy tawxiid moo tax yal na nu yàlla may tawxiid su nit ñàkkee tawxiid addunaam yàqu na àllaaxiram yàqu na mu ne wa asarru an yaisu fi zulumaati shirki wal kufraani gaa yi bi ñu lànkee gëm yàlla lànk tawxiid kon léegi lan moo fi nekk mooy nag léegi ñu nar a nuur nag nar a xuus ci dund ci lëndëm ak bokkaale ak weddi yàlla waaw nit bu noppee am tawxiid dootoo ci looy dundati dootoo dund ci leer ci weddi yàlla ngay dund ci kufru ngay dund ci shirk ngay dund looloo tax gis nga ko amul tawxiid lu mu dugg wane ci ñàkk a gëm yàlla buy ut liggéey wane ko ci su amee liggéey bi wane ko ci suy ut kër wane ko ci su amee kër gi wane ko ci ku gëmul yàlla lépp loo dugg rek sa ñàkk gëm yàlla da ciy feeñ suñ la ne da bàyyil ba guddi nga dem ba ci Carrefour nga sangu def yaramu neen di nga ko def suñ la nee reyal xar nga sangoo deret bi nga def ko suñ la nee sëlmool nen nga def ko suñ la nee demal armée li ci guddi nga dem suñ la nee demal nga ut yaxu niiw yaxu nit nga dem ut luñ la wax nga def ko nga def ko barki démb bi dama dugg benn taxi ñuy waxtaan ci mbiru diine mu ne benn xaritam ay nit ñoo koy bëggoon yóbbu mu tukki ñu ne dañuy def waa ji invisible maanaa yow kenn du la gis da ngay dugg ci avion bi dem da ngay yegg kenn du la gis invisible lan lay def lan lañ ko laaj ñu ne ko indil muus mu ñuul kukk soo fexee ba nga indi muus mu ñuul nga indi bërigo mat léegi bu ñuy baxal ndox mi dañuy baxal baxal bërigo mat ñu baxal ndox ci bërigo bi suñ baxalee baxal baxal ba mu bax ñu dugal ci muus mi di xamb ëpp ko di xamb ba yàpp muus mi ak der bi taxalikook yax bi suñ génnee yax yi am luñ ci def ñu jox la ko ñu ne nga yëy yax yi nga koy yëy par benn di ko di ko màtt am na ci yax booy màtt rek da ngay nekk invisible ma ne ko léegi nag sa xarit boobu def na ko mu ne ah wóoruma de waaye ay nit woon nañ ko ne ko pour mu tukki na ñëw mu dañu defal ko loolu mu tukki te man gëm naa ne loolu nit ay nit a ngi koy def ndax Sénégal moom fi leen tukki toll ak fi leen xaalis toll loo leen wax ñu def ko ñu def ko waaye loolu mbokk yi ndax diine la loolu mbokk yi ndax ànd naa ngëm yàlla loolu mbokk yi ndax ànd naag lislaam loolu ndax ànd naag ngor loolu ndax ànd naag jom loolu ndax ànd naag ngëm yàlla tabaraka wa taala wallahi àndul
misali ner bi nga xamante ni daa toj mosu bi rek yonent bi mu wax mu toj ko ci ner bi rek wallahi bàyyi ko foofu wallahi bàyyi ko foofu ba mosu bi dee wallahi la mere ko ci ya- dugal dugal ko safara ko ray ko dugal ko safara wallahi wallahi wax nga dëgg hadis la de xamante ni nag kii nga xamante ni jël muus doo ko ci buri ko ndox bu baax wallahi ndaw si dem na safara rek dem na safara fi hirrin rabatatha ci ndaw s- muus moo xam ne daf ko yeew bàyyi ko mu lekk ci ngundante yàlla yi dox ci kaw suuf muus mi xiif dee yàlla yóbbu ndaw si safara am na koo xam ne xaj la may mu naan yàlla dugal ko jéggal ko dugal ko aljanna mu ne bi loolu amee yunus woote ba sonn wax ba sonn gaa ñi lànk ne ci kufru ci lëndëm ci bokkaale la ñuy dee falamma yaisa minhum nabiy allahi yunus alayhi salaam xaraja min tilka alqarya wa waadahum bi xululi aladabi bada salasati ayaam moom yonent la yàlla ko yónni woo na leen waar na leen ñu lànk découragé na moom tamit découragé na li bokkul ci mission wu yonent li bokkul ci mission wu boroom xam-xam li bokkul ci mission jàngalekat yarkat mooy waroo découragé mooy li xew léegi tey sonn nañu man de wax naa ba sonn waaw man na yow yàlla da la wooteel rek yàlla loolu la la sant da ngaa jur yàlla na la yaral da ngay jàngale yàlla na la jàngaleel da ngay woote yàlla na la wooteel waaye résultat bi ñi ngay jàngal ñu am xam-xam ñi ngay woo ñu wuyu ñi ngay yar ñu yaru ci yàlla la nekk léegi nag moom comme woote na waaraate na jàngale na nit ñi lànk mu daal di découragé mu génn dëkk ba xaraja min tilkal qarya mu gedd génn dëkk ba yemu ci waaye mu ne leen maa ngi ni dem ñetti fan laay def musiba nekk seen kaw yéen ñëm ngeen dee mu dem bi mu demee taabat qawmu yunus alayhi salaam mu dem rek nit ñi tuub ginnaawam nit ñi daal di tuub ginnaawam moom yëgu na nit ñi tuub nañ moom génn na lam yanzur yunus alayhi salaam an yatiyahu al-amru min allahi jalla wa ala moom xaarul yàlla ne ko génnal xaarul yàlla ne ko demal mu daal woote na nit ñi lànk nañ découragé na génn na dem na ba pare nag tëkku na leen ne leen ñetti fan laay def yéen ñëm ngeen dee te safara ngeen jëm xaarul mbir mi jóge ci yàlla maanaam gis nga lii rek lii xissa yii mais yow daf ñuy won ñun waa Sénégal yàlla mooy yàlla gis nga Sénégal li leen alag mooy ñàkk jàng alxuraan wallahi aaya yi bu leeroon suñu bopp kon duñu topp sëriñ si nii ni ñu toppee yàlla ndax ñi ci bëri dañoo gëm ne sëriñ ñoo leen dugal aljanna nga gis yonent bu baayam nekk safara yonent bu jabaram nekk safara yonent bu ay doomam nekk safara yonent bu ay mbokkam nekk safara xoola yunus a ngi nii woo ñii ñii lànk mu gedd xanaa de kon da leen di wane man am naa doole kon maanaam li ma bëgg kon war naa wàcc seen kaw mu dem ñooñu tuub ginnaawam nee na mu dem xaarul ndigal yàlla tabaraka wa taala tukki sori min hadihi alqarya alzalima fa taajjala alxuruj mu yàkkamti génn wa huwa fi xaalatin min alxazni walgadab bi muy dem mi ngi naqarlu mi ngi mer fa lam yashcur annahu bi zalika axtaa yëgul ni moom juum na lan mooy lan mooy njuum te li mooy dañ laa yónni waroon ngaa xaar ki la yónni jox la ndigal ne la comme maa la yónni woote nga wuyuwuñu wax nga dégguñu defal nangam ak nangam Moussa dafa xaaroon ba yàlla ne ko génnal Nuux dafa xaaroon ba yàlla ne ko génnal Muhammad alayhi salaatu salaam dafa toog Màkka ba yàlla ne ko génnal Yunus nag dafa jël ay bagage am génn te yëgul ne moom juum na wa annahu laysa min himmatihi hidayati nnaas wa innama himmatuhu taqtasiru ala da'watihim ila allahi wa amma alhidayatu fala yamlikuha illa allahi jalla wa ala mbokk yi moom yunus dafa fàtte ne yàlla sant ko ne ko jubalal nit ñi lan la ko yàlla sant lan la ko yàlla wax wooteel waaye njub ci loxo yàlla la nekk moo tax yàlla waxoon yonente bi innaka la tahdi man ahbabta walakin allah yahdi man yasha fàtte na njub nekkul ci loxoom fàtte na liggéeyam woote la du jubalaate fàtte na moom yitteem yëpp woo nit ñi la ila allah wa amal hidaaya bu dee jubal fala yamlikuha illa allah yàlla rek mooy jubale almuhim li am importance mooy annahu lamma xaraja yunus alayhi salaam min bayni ahli hadihi alqarya alzalima ba mu génne moom yunus ci dëkk bi nga xam ne dañoo tooñ muy ninawa ah wa taxaqaqa nuzulu alazabi bihim moom yunus mu dëggal leen ne bu ma demee yàlla mbugal leen xasafa allahu fi qulubihim attawbata wal inabata mu génn rek yeggagul sax ci tali bi yàlla sànni ci xoli jaami yàlla waa dëkk ba tuub dellu ci yàlla ñoom ñoom ñu tuub ala ma kaanu minhu te la ñu nekkoon yëpp ñu génn ci la leen yonent bi doon wax yëpp ñu déggu ba ñu tuubee xam nga nuñ def taqali xar yi taqalee bàyyi ma yi ku nekk ñu taqale la ak sa borom kër ak sa doom góor ñi taqali kook jigéen ñi bàyyi tàqalikook seen doom yaale yaayi tàqalikook seen doom ñu def noonu rabu àll yi tàqale jur yi jigéen yéeg góor yéeg doom yi ñu def ko ci lépp wa tadarra'u ila allah ñu dellu ci yàlla tuub di yuuxu di jooy dellu ci seen borom subhanahu wa taala góor ñi ak jigéen ña xale yi góor yéeg yu jigéen ñi yaay yeeg doom yi rabu àll yëpp ñu taqale leen même gëléem yi nag yi gàtt yi lépp fa kasafa allahu bi xawlihi wa quwatihi wa raafatihi wa rahmatihi anhumul azab mbugal moomu yàlla bëggoon leen mbugal yunus mbugal moomu mu leen waxoon bi ñu defee lool rek parce que ñoom xam nañ xam nañ ne ab yonent su ko yàlla yónni amu fa ndam ba mu génn rek musiba day am ah jàng nañu histoire gis nañ yeneen dëkk yi loolu moo tax ba Yunus ne tëll dem rek ñu gaaw xam ne du baax rek ñu tuub tuubantuwuñu de dañoo tuub dëgg mooy lii ma leen wax lañ def tàqale lépp commencé di yuuxu di dellu ci seen borom sunu borom subhanahu wa taala ci yërmandeem ak lewetam ak kattanam yàlla daal di yëkkati mbugal mi seen kaw yàlla daal di delloo mbugal mi fekk tiimoon na leen mel ni daggitu xaaju guddi loolu moo tax borom bi subhanahu wa taala di wax mu ne fa lawla kaanat qarya amanat fa nafaaha imaanuha illa qawma yunus لما آمنوا كشفنا عنهم العذاب كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين borom bi subhanahu wa taala ne amul benn dëkk boo xam ne gëm na yàlla ngëmam jëriñ ko lu dul nitu Yunus ba ñu gëmee yàlla yàlla nee na ma wuññi ma dindi ma puus soril mbugal ma mbugalu toroxtaange gàcce gi naroon tegu seen kaw fil xayaati dunia ci dundu àdduna yàlla neen dama leen naroon toroxal ci àdduna waaye ba ñu tuubee rek seen ngëm jëriñ leen mooy yàlla dindil leen mbugal ma leen yàlla naroon teg ah léegi nag ba ñu tuubee faqad axbarana rabbuna tabaraka wa taala yàlla xamal nañu ne nitu yunus nii seen ngëm de jëriñ na leen ginnaaw ba mbugal waroon wàcc lan moo tax lan moo baare mbugal mi ba wàccul mooy iman moo tax chaque jour iman day jëriñ ku ko def ku ko am su ngeen gisee tey sunu dëkk bi mel nii mooy iman moo fi amul nit ñi di ñaan ndox te ndox mi bu ñëwee di nekk mbugal fi mu nekk nii daanaka dëkk bi bu ne woon xaalis a ngi nii ndox a ngi nii lu ñu jëm ah xaalis a ngi nii ndox a ngi nii lu ñu jëm xaalis bu yàlla ne woon ma taw su yàlla mënoon jàkkaar ne ma taw lu ñu koy wax déedéet doy na doy na dama la ñu rek doy na soo moytu sax bu yàlla doon wax ndax ma taw suuf wala xeer dañ naan ko waaw indi suuf ndox moom indi suuf suuf doy suuf baax na allahu akbar te lan la nit ñi doon wax ndox lan la yërmande te nit ñi bëggatuñoo gis ndox moo tax ñi nga xam ne dañuy jël ndox di sotti seen oto yi fajar ak seen buntu kër yeeg seen buntu atelier yeeg ndox a ngi nii am na am na koñ yoo xam ne tey ku fa xëy yor satala ne da ngay roose dañ la ne eh xam nga yow da ñuy fontoo xam nga kër gu taabu nit ñi toxu ku fa ñor satala ndox ne da ngay roose buntu kër gi loolu la wax foofu ku fa xëy di sël mu sax dañ lay mere kon kon ndox yi ñuy sotti ana ndox bi kon nit ñi war na noo yeewu waaye duñ yeewu li ndox mi di alak nit ñëpp da ngay gis ku xëy jël ndox di sotti buntu këram parce que bidaa baaxul nee na wa madatil ayaam asalaasa ndeysaan ñetti fan yi passé na allati waadaha allati waada biha yunus ñetti fan yi leen yunus waxoon tey ngeen dee ñetti fan yi bu passé da ngeen di dee yéen ñëpp léegi nag yàlla subhanahu wa taala def na ñetti fan yooyu paase na fa jaa yanzuru mawidullahu fihim léegi nag moom yunus bu del si muy xool ndax ñi dee nañ wala deewuñu fa laallahu kaana mutazilan lahum amaana dafa sori woon tuuti rek làqu fenn di xaar asamaan bu màbb wala suuf su këppatalu wala géej gu débordé ñëw seen kaw waaye nday lan moo ko bett mooy lam yadri ma faalahu moom xamul woon ne ñii lan lañ def ginnaawam min a tawbati wal inaabati ne tuub nañ dellu nañ ci yàlla yëgu ko xamu ci dara fa wajadahum lamma atalla alayhim salimin ba mu ñëwee ba ci dëkk bi mu gis ñëpp dina gis seen activité kenn deewul dara xewu fi ah problème am na fa axdabahu zalik léegi nag mu mer ñi lu tax deewuñ ñi lu tax asamaan wàccu seen kaw ñi lu tax suuf si pëttaxu leen ñi lu tax géej gi wannu leen ah mu mer wa kaana jazaul alkaadib indahum an yaqtula fa xaraja haariban te xam ngeen ne ñooñu seen pas-pas mooy fay loolu képp koo xam ne wax nga lu dul dëgg maanaam wax nga leen yéen nangam loolu amul sa atte mooy dañ laa war a rey comme xam ne kon bu ñu ko gisee dañ koy rey parce que nee na leen ñetti fan da ngeen di dee deewulu kon léegi moom lan mooy atte dan ko war a rey mu départ fa xaraja haariban min qawmihi xasiyata al qatli mu daw xanaa beneen problème am na mu daw ngir ragal nit ña jàpp ko rey ko ndax wax na lu dul dëgg allahu akbar gis ngeen ñun suñu diine war na noo sant yàlla suñu diine mun waxoon sene ci lislaam ku fen ñu rey ko kon ñu ñëw rey nan mas ci lan dëkk ci lañu xëy di ci yënd xoola ñi seen diine lan la wax ku fen nan ko rey ñun da ngay fen tuub jéggulu sa borom ah yàlla jéggal la te fen dafa bokk ci bàkkaar yi gën a garaaw ndax yonent laaj nañ ko ndax jullit dana nay mu ne waaw yonent dañ ko laaj ndax jullit dana nay mu ne waaw ndax jullit dana ngott mu ne waaw ndax jullit dana ragal mu ne waaw ñu ne ko ndax jullit dina fen mu ne déedéet jullit du fen jullit du fen yonent bi ne waxal dëgg donte dan lay rey waxal dëgg lu mu métti métti waxal dëgg xoolal ñi seen diine mooy ku fen dan lay rey comme moom wax na leen lu amul ñëw na ba ci dëkk bi xool gis ne dara dalu leen mu xam ne buñ ko gisee dañ koy jàpp rey ko mu daw wa kaana al waajib ala yunus an yarda bi qala illa xam ngeen lu waroon ci moom mooy mu nangu ndogalal yàlla dan mooy ndogalal yàlla waaye mu daw ndeysaan daa mel ne poudre daf may xeeñ de waaw musiba la ñuy def dañuy ñëw di pompe dëkk bi duñ wax nit ñi ah nit ñi denc seeni bagage wala ub seeni wala ub seeni wala léegi ñu ngi nii di pu xolal poudre mooy xeeñ mi ngi nii di dugg ci gémmiñu nit ñi gis nga lii dafa lii wala ñu waaye ba nit ñi tëdd li yooyu la ñuy pompe wala nit ñi la ñuy pompe nit ñi nekk ci dëkk bi heure bi ñuy pompe dëkk bi wala li duñ bàyyi ba nit ñi tëdd mu ne wa kaana alwaajib ala yunus an yarda bi qadaa illahi tabaraka wa taala wa yusallimu li amrihi fa laysa lil abd an yughdibahu fi'lu rabbihi li waroon ci yunus mooy mu nangu ndogalu yàlla subhanahu wa taala ndax ab jaam dafa war a jébbulul li yàlla def waaye warul ab jaam muy mer ci lan ci lu yàlla def lu yàlla def waroo cee mer wa kaana li yunus an yaxruja min gayri iznin minhu yunus génn na te génnul ci santaane yàlla yemul ci génn waaye dig na waa dëkk ba dee te lii yëpp yàlla programmé wu ko mu ne wa saahibul huut huwa yunus maa ngi jégalu mu ne Yunus génn na euh, ci lu dul santaane borom bi subhanahu wa taala nee na bi loolu amee sunu borom subhanahu wa taala ولذلك نهى الله رسولنا صلى الله عليه وسلم ان يكون كصاحب الحوت mu ne loolu moo tax yàlla daal di joxoon yonente bi alayhi salatu wasalam ne ko bul mel ne yunus wala takun ka saahibil xuut bul nekk borom jën ba ndax moom kat la moo tax yàlla wax loolu yonent ndax yonent xam ngeen ne tolloon na jamono bi yonent yunus tonnoon mooy woote waa màkk ñaataat fukki at ak ñett ñu lànk waxul sax jub weer waaye fukki at ak ñett waaye loolu yëpp yàlla moo orienté yonent bi ne ko wala takun ka saahibil huut yàlla tere yonent bi mu mel ne yunus wa saahibul huut wa yunus borom jën boobu mooy yunus ndax lan ndax jën boobu ñu naan huut moo ko won noonu yàlla ne yonent bi lan fasbir li hukmi rabbika wala takun ka saahibil huut muñal sa àttey boroom bul mel ne borom jën ba kon mbokk jullit yi ci tomb bi la ñuy taxaw ba àllarba encore ak jàmm incha allah ñu eggali leneen li des ci histoire yonent yàlla yunus alayhi salaam na leen yàlla defal tawfiq asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh